for nañu ci wewu bëy li tax ñu naan wewu bëy lañ ko fore mooy lu ñu adressé wul ñun officiellement dañ koy jàppe ne ci mbedd mi la ci réseaux sociaux yi ñu bind ci aw xët bind ne ñoom lépp luy indemnité bu ñu jox jàngalekat yi ci protocole d'accord bi ñu signé woon ak ñoom danañu ko imposer te ñu nag ñoom waxuñu woon loolu bu dee li ñu gis ci mbedd mi dëgg la bett nañ ñu waaye yonent bi ne woon na laa yul daxul muminu fii tey nii nit ki doo ko jam ñaari yoon yu tegaloo kon jam nañu waaye duñu ñaareel ndax danañ ñu gis ñun li ñu waxoon ak ñoom àdduna bi yépp di ko seede lu leer lañu ñu négocier lu leer lañu ñu ak ñoom loolu mooy dafa am benn métaphore wala benn misaal wala benn melal boo xam ne man mii di wax ak yéen maa ko fa génne mu nekk wax joo xam ne ci la ñu négocier ba signé li ñu signé loolu mooy lépp lu ñuy yokk ci payooru jàngkat yi na nekk naafu gerte naafu gerte boobu nañ ko bàcc buñ ko bàccee ñoom nañ jël ngooñ mi bu ñu noppee nañu ko xolli nañ jël xollit yi kemb ga ca des nañu tànn buuse yi nañu jël yooyu ñu jël mooy nekk impôt bi ñun kemb gi lañu soxla te parewuñu pour bàyyi benn doom ci kemb googu kemb googu bi ñu ko signé dañ ñoo jox ay ay chiffres yoo xam ne dañu ne lii la ñuy yokk ci indemnité lii la ñuy yokk ci indemnité yu bees lii la ñuy yokk ci ci payoor yi yooyu bi ñu ko tënkee muy ay chiffres yu leer ay araf yu leer ñu bind ko jox ko suñuy bokk ñu signalé ko ak ñoom muy gouvernement wu Sénégal kon bu ñu foree tey ci wewu béy ne ñoom dañoo bëgg suñu kemb gi ñu dese ñu jël ci ay tibb loolu parewuñu ko kemb gi day mat sëkk mbaa danañ ñu gis beneen bi mooy ñi ngi woo nguur gi kon ci mu delloo si xelam xam ne ñii mu seqal mbir mi ay njàccaar lañu duñu ay cuune ñun ñoo leen jàngal ñoom ba ñu toog foofu ñu toog kon amut fenn fu ñu mën a jaar ba nax ñu beneen bi mooy bu fekkee dañoo bëgg a laye dañoo bëgg laye ki jiite woon direction wu soldu jële ko fa njëkk ñuy commencé fay li ñu war a fay ci weeru mai indi ku bees bu dee dañoo bëgg laye loolu ne ku bees ki moo xamut li xew fii lañ ñuy fekk nguur du ay jëmm du ay bopp waaye nguur jëmm la joo xam ne même bu bopp ba demee beneen bopp day taxaw palaasam te ñun bi ñuy signé signé ak direction wu solde ki ñu signeel mooy nguuru Sénégal kon li ñu signé ak moom nañu ko jox ba mu mat sëkk na kemb gi mat bu ci benn doom manki loolu moo tax ñi ngi woo ñi nga xam ne ñoo toogoon seede lii ñu signé woon ak ñoom ñoom nañu jóg wax ak nguur gi parce que le 20 jotagut salaire yi kenn chargé gu ko bu dee dañoo juumoon ba am lu ñu jël ci suñu kemb gi nañu ko delloowaat ndax benn kayit kenn tiiree gu ko nañu jubbanti seen njuumte boobu bu dee njuumte am na ñuy woo ñooñu ñu dox ci loolu di woo aussi képp koo xam ne jàngalekat nga bëgg nga réew mi dox bëgg nga école bi dox nga fagaru nga jatu taxaw ne soccet bu weer wi deexee boo gisee ci sa salaire lu wuuteeg la ñu signé woon wax ñu ko ci nu mu gën a gaawee ñu yeesal suñu laxasaay taxaw xeex ko ba suñu kem bu gépp ñu jot ko di woo aussi sénégalais yi nga xam ne nekkuñ ci enseignement waaye seeni doom ñi ngi ci école bi lii fi mu jëm baaxut nañu jee teel a artu ndax ki nga xam ne moo jiite réew mi lu leer la wax bi mu recevoir li ñuy tuddee centrale yi le 3 mais ci pale li mu wax mooy nañu respecté li ñu signé ak nguur gi nañu respecté li ñu signé ak syndicat yi comme nag buur bi wax na loolu dag yi waruñoo ay